nit ñi amul sax seen jot Sénégalais yi vont vaquer à leurs occupations lenn moo leen di jaaxal. salaamaaleykum patriote salaamaaleykum patriote ziar naa ñëpp donc démb président dissoudre na assemblée nationale. am na ñoo xam te ñi ngi coow mais ñi doon coow bu leen jaaxal ñi daan coow rek ñoo nekk di coow ñi daan wax di xoox ju ñaaw di sos di tappale ñoom rek ñoo nekk di wax. du am kenn koo xam te ni dina ñëw ni la li président def tegu ko ci yoon ci charte réew mi ci loi constitution bi du am ko mës a wax parce que loolu amul dañ naan la rek non président moo bindoon décret mu ni le treize donc dafa di waxam maanaam ñii ne ñii dañ naan par jour fu ci boobu laa bëgg a ñëw pour mu clair pour ngeen comprendre moo fi nekk di wax wiiri wiiri jaari wiiri wiiri nii ay waxu caaxaan dama leen wax lu clair. dañ naan le président moo def par jour dafa waxoon ni le treize la koy def léegi mu dissoudre ko le douze. président su ko neexee li ma waxoon démb lay waxaat su ko neexee mu bind décret décret nommé la. suba mu bindaat décret dàq la moom la ko yoon may su ko neex mu bind décret ni douze ngeen def ko su ko neex mu bind décret tas assemblée nationale loolu yoon moom la ko may loolu amul parjure amul dara amul weddi sa wax amul leen donc président bu falee nit lundi mu mu mu wàcce ko bind décret fal ko lundi mardi mu wàcce ko donc dafa parjure boppam dafa dafa dafa weddi waxam non loolu moom la ko loi bi mel su ko neexee mu ni léegi jàpp naa date DPG nangam ba mu yàgg mu gis ni loolu jaratul muy am assemblée nationale bi dañ koy tas te population bi lii dañ tee bëgg yëgaluñ ko sax seen yaram. population sénégalaise ñoo am solo politiciens yi ratatati seen wax amul sens population moo jar déglu te lii population bi da cee kontaan quatre-vingt-dix pour cent sénégalais boo leen laajee d'accord nañ pour ñu dissoudre assemblée nationale bi. assemblée nationale bi ñoo pousse Sénégal. assemblée nationale bi ñoo pousse élection Sénégal bay sénégalais génn manifester ba am ñu ci faatu waa kër Macky Sall yii la. assemblée nationale bi ñoo voté loi d'amnistie bi nga xamante ni ñi doon rey doomu Sénégal yi def yi ñaawteef yépp pour muur leen pour seen lépp dara dootu kenn dootu leen toppati dara assemblée nationale bi moo ko voté ci volonté bëgg-bëgg benn nit. assemblée nationale bi lañ indil débat d'orientation budgétaire pour ñu natt alalu askan wi ñu war a yore askan wi président Diomaye soumettre leen ko boobu dara amul waxuñu waxu dissolution waxuñu dara. pour liggéey ak ñoom ci élégance ñu te ko ñu bañ loolu du am du ñu leen recevoir parce que lan président Ousmane Sonko dafa bind benn poste boo xam te da leen a ñu def loo xamante ni loi bi da koo bañ ñu mënu leen cee topp assemblée nationale bii nii ñoo ko def. assemblée nationale bi ñoo takk ay ati ati ati at yor règle def règlement intérieur bu foo di ci liggéey pendant des années di liggéey sur du faux ci kaw sénégalais assemblée nationale bi la Kourouma ki ne ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni. loolu leen neex la ñuy def Macky Sall moo fa teg. pour wax leen defu naa fekk yi nga xamante ni moo nekk ci waa benn bokk yaakaar ak ñenn ñi nga xamante ni dañ leen di jàppale te ñuy ci télé yi te duñ ko wax te ñu bëri dañ koo fàtte mais assemblée bi Macky Sall bi mu amee un an rek nga xam te deux ans la war ko bi mu amee un an Macky Sall bëggoon na ko dissoudre est ce que ñeneen koy fàttali ko Macky Sall dugaloon na benn loi pour dissoudre assemblée nationale bi ni waa benn bokk yaakaar yi lànk ni duñ ko ci topp. te boobu un la am te deux ans la war pour ñu dissoudre ko Macky Sall def benn prox ndoolu roof benn loi ci biir boo xam te ni da ko bëggoon dissoudre as député yi bañ coow lu bëri assemblée bu Macky Sall rocciwaat affaire boobu noonu loolu am na fii yi ñoo gaaw fàtte. président Diomaye Faye la sénégalais yi fal ci programme mu war a dérouler programme Afrique ñun pareeguñu ñun ñun Afrique pareeguñu pour président bi am lii opposition bi jiitu assemblée nationale ñun Afrique pareeguñu loolu. parce que xol la ñuy demee ak bañ ak ak bëgg-bëgg benn nit ñun pareeguñu loolu gis nga fii assemblée nationale bii nii bu président Diomaye ni woon dafay liggéey ñoom lu mu indi ñu bloqué ko la preuve boobaag léegi lu mu fa indi ñu bloqué ko est kooku ñu fal ñun ci programme am naka lay mën a liggéey Sénégal ak assemblée boo lu mu indi ñu bloqué ko mënta nekk c'est pas possible élection la ñu jëm duma leen am majorité assemblée nationale ni ko askan wi bëggee programme bi président Diomaye Faye teg moo mën ko dérouler ak ay député yoo xamante ni bëgg nañ Sénégal et on avance préparé wu leen dem campagne quelques jours ci des campagne bi élection yi du am parrainage élection yi li conseil constitutionnel wax pour muy clair du am parrainage directement voté lañ jëm parce que ay élection anticipée la élection anticipée laajul parrainage situation bi ni mu demee la donc conseil constitutionnel loolu la décidé parrainage du am donc ku ci nekk li nga mën coow lu bëri borom làmmi ñu rëy ku ci nekk li nga mën incha allah sénégalais dinañ ko xam préparé wu leen wàccaat leen sur le terrain ñu dem ci élection yi gagné ko président Diomaye teg programme am mun ko doxal. premier ministre ñëw def déclaration politique générale ci ay député yu am niveau waxuma ay député ay député yu am niveau yoo xam te Sénégal moo leen tax a jóg ñu ñëw taxaw jeex na sénégalais ñooy fal sénégalais lañ delloowaat baat bi loolu rek la population sénégalaise nag. bëgg nañ ci lii politiciens yi ñi di coow ci télé rajo nit ñi amuñ sax seen jot Sénégal yi vont vaquer à leurs occupations lenn moo leen di jaaxal. il faut mais il faut ñu jubanti il ñu jubanti euh, maire boobu Moussa Bocar Thiam fan la nekkoon. ministère lañ ko joxoon lan la fa def il n'a rien à se reprocher nga foog. donc Farba Ngom. Mm-hmm. parce que zone boobu la nekk. yaa ngi doon wax ndax pourquoi demul Amiens. Mhm. moom est-ce qu'il n'a rien à se reprocher réeral fi woon 900 millions kër. Mhm. réeral mhm. ah. suufu bi ñu ngi leen ciy tudd. ba noppi gis nga réduction des comptes yi ñu jëm. pour cent des gens qui auront des problèmes. ay problèmes fonciers lañu. parce que xam nga foncier kayit la. kayit bu ñu bind la. traçable waaw dafa traçable. booy fay day traçable. booy muté day traçable. loo ciy def këyit. day traçable. waaw ay non qui prête non moom dina am ampagaay ñoo xam ne. Euh, ils vont rendre compte parce que ñoom ñoo doon defar ay këyit de complaisance. Mm-hmm. ay attestation mm-hmm. attestation de bail. dañuy gis kenn koo xam ne dañ lay defal saako attestation. Mm-hmm. ñuy wër di jaay soixante millions soixante millions soixante. boo jaayee cent rek am nga six milliards. suuf aéroport bi. ak feneen ak feneen mbuurkaat ak foncier agricole lépp noonu sans compter maintenant gis ngeen ministère de la fonction publique ñaata emploi fictif la fi fekk mhm. direction de la bourse mhm. port foo dem mais c'est c'est général mhm. cest à dëkk bi dañ ko yàq-yàq goo xam ne il faut jàpp xam ko ñuy seetaan xam ko sëriñ si xam ko partenaire euh, au développement yi xam ko ñu xam ni lii mooy l'état des lieux te ñii ñoo opéré ces crimes avant may génn si yow au-delà de cet aspect économique aussi bu ñu gisee aussi euh, la situation politique attention yi nga xam ne am euh, na si biir assemblée nationale on attend aussi. Euh, dama jàpp ne discours boobu wala adresse boobu le président war a def à la nation sénégalaise. Mm. mooy nekk le top départ. Ah ah. des poursuites judiciaires le top départ. Euh, maanaam ci la parquet financier bi di entrer en action. su mm-hmm. dafa mel ni le président dafay ñëw annoncé la li tax parquet bi li tax lii ñu jëm si wala li tax fii ñi nekk suñu kanam ñu war ko def lii moo tax. Mm-hmm. li ko waral mooy bi premier ministre ñëwee ak le président dañoo santaane auditu trois dernières années yi mbooleem direction ak ministère. Mm-hmm. audi bi je pense que pare na. situation boobu doy na waar doy waar boo xam ni dafay normal le président adressé wu ñi nga xam ne ñoo ko fal muy san population sénégalaise bi ngir mu xamal leen dëgg-dëgg sans langue de bois réew mi ñoom fan leen ko fekk